grand maa lay fay bu baax a baax te ñu ngi rafetlu seen seen teewaay fii quoi. ñun nag fii nag euh, métier bi euh, yomb na yombul te ñu ngi ci sant yàlla daal. Euh, métier bi daal ñu ci sant yàlla ñu ci suturalu quoi. xale yu jigéen fa yàlla moom ah buñ fi ñëwee am dinañ am luñ luñ bëgg. waaw léegi métier bi nu mu tudd. métier bi mu ngi tudd pose pose pose ongle pose cils pédicure daal kon loolu lañ fiy def. Ah. Euh, loolu daal moom moo fi nekk pédicure manucure pose ongle pose cils daal. voilà mais par rapport à seen métier bi nii est-ce que di nga mën a s'en sortir ak métier bi nii. waaw waaw ñu ngi si génn ñu ngi sant yàlla baax a baax ñu si sant yàlla bu baax a baax ñu ci génn bu baax a baax moo dëgg fa yàlla moom ñu si sant yàlla bu baax quoi nit moom euh, saa yu ñu daal ñu gën di gis changement daal ñu ngi sant yàlla bu bu bu baax. waaw léegi man dama bëgg xam métier bi da nga ko da nga def formation ou bien da nga ko jàng nii nii si mbedd bi waaw mais xam nga jàng si mbedd mi tam wóorul il faut rek nga jaar si formation dañoo jaar si leer quoi ñu doog a mën parce que xam nga bët dafa mhm. ah, koy def il faut rek nga jaar ci yoon bi kon dañoo jaar si yoon ba yëg si fi ñu yëg si fii quoi noonu la fa demee mhm. léegi dama bëgg a xam métier bi nii par rapport à ça et yow tamit di nga former ay boy ni ñu xam ni suba si dañ mën dem dañuy génne seen daara mel yow waaw ñu loolu ñaan sax ne loolu lay dem ba am sa entreprise bu mag boo xam da ngay dem ba former ay boy former ku ne kenn ku tu vois waaw loolu la ñuy sant yàlla kenn ku loolu lay rêvé quoi mhm. loolu la ñuy te formation bi tamit mu ngi fi tamit quoi loolu amul paf quoi léegi métier bi yow foo Dakar fii ou non Dakar ko na ko ko ko ko grand xam nga fi laa ko jàngee daal Sénégal fi laa ko jàngee. waaw léegi yow xale jigéen su ñëwee nii soo leen defaree ay pause pause avenir mais ñaata la ñuy fay nii par rapport seen. Euh, le ça dépend rek ça dépend si li nga yor ñun am nañ am nañ kenn ko doolam fi mu toll am nañ ko. am nañ boo xam ne cheveux la am na boo xam ne synthétique la ongul tamit comme sa doole fi mu toll rek mën nañ ko gérer rek yow ko parce que nga rek dëkk bi dafa xaw a ñàng daal. waaw léegi yow ban message ngay joxe jeunesse jeunes yi nga xam ne ñuy toog kër gi amuñu métier donc par rapport seen métier bi dañ koy xeeb nañ si génn quoi léegi ban message ngay lancé jeunes yi nekk Galère. waaw man li ma mooy ko ñi toog ci kër gi tamit xam nga te defuñu dara rek euh, métier kenn du ko xeeb. métier kenn du ko xeeb ça veut dire que génnal dóor waar rek lépp loo am rek nga xam ne loolu la yàlla may ko am te ñun job bi ñu dugg dara lu lu lu lu job liggéey moom ah noo ko jàppee rek noonu lay. dikkee quoi ñun job bi dañ ko dañ ko gëm gëm ni joob joob la quoi comme yeneen job yi waaw kon ñun gëmuñu ci leneen lu dul job te te jeunes yi tamit toog seen kër def ñu dara li ma leen di wax mooy que ñooñu génn dóor waar loolu moom mën a génne tëdd bi ci waaw. sa place bi nu mu tudd. waaw fii bu ñu tudd VIP famille quoi VIP famille ça veut dire que ñun ay famille lañ kenn ku ñëw rek mën nañ la boole ci bi fa famille bi kon yaatal nañ bu buntu yi quoi ku ñëw rek bienvenue quoi loolu la ko demee. ok. merci donc sa dernier cadeau lay joxe pour. waaw info quel point waaw waaw li ñu mooy que yéen ngi def seen seen waar mu rafet mu jaar yoon ñu ngi kontaan ci yéen franchement moom ci kaw ca kanam rek ngeen jëm quoi jàpp te bàyyi rek dina baax. merci beaucoup info 15 point com Khadri Camara merci à tous.